combat bi diggante Juma Koor bu Joal la délégué mooy délégué bu caalaan na ko ah ñu ngay bëre Mbaye remplacé na ko Mbaye war na ko ndombo Mbaye délégué war na booy bi ndombo booy waa Mbaye gërëm ko daan na ko Mbaye délégué daan na booy bi ndeysaan arbitre sifflé na diggante Papa Gueye Mouma ak benn booy yi daa mel ni dañuy combine na tànk ba Papa Gueye jël na tànk na ko ba si kaw di dox ak moom na booy bi booy bi da koo bàyyi mu jàll. at bi sifflé na diggante Mbaye Sarr bu Joal ak Maxalaay bu Joal ñaari booy Joal lañu ndeysaan Maxalaay ak Mbaye Sarr Maxalaay jël na tànk ba xalaat a ko daan na ko. Boy Sarr jël bu gaaw ndeysaan kooku Papa Boy Djiné la maanaam jëkkëru Ndeye Gueye ndeysaan def na teew fii ci Joal Fadiouth wut si nag Papa Boy waa di leen di wax ne arbitre sifflé na ndeysaan combat bi combat soog la combat la diggante Papa Boy Djiné jëkkëru Ndeye Adija Adija moo féete suñu càmmoñ Papa Boy Djiné suñu ndeyjoor Papa Adija ñu ngay lewatoo ndeysaan Papa Boy Faa Diagne ndeysaan fii dimanche le 29 décembre 2020 Papa Boy Djiné Ady Dia combat soxla ndeysaan Papa Boy Djiné léegi moo féete suñu càmmoñ Ady Dia suñu ndeyjoor mu ngay bëre bëre kaw Papa Boy Djiné Ady Dia Papa Boy Djiné Ady Dia

ndeysaan fair play diggante Papa Boy Djiné gannaaw ba daane Adija ñëw waxtaan ak moom ndeysaan lii rafet na waa lii dafa nice encouragé ko ndeysaan kooku mooy Papa Boy Djiné waaw arbitre sifflé waat na diggante Mbine Ndiol ak Mamadou Mamadou Sène ak Mbine Ndiol bu Joal ñoom ñaar ñëpp waa Joal lañ sax ndeysaan di bëre fii ci Joal ay see jamono ñoo woote fii tegal gaa yi nag ndeysaan dimanche le 29 novembre 2020 Papa Boy Djiné mooy romb noonu Mamadou ak Ngil Ndiol nag yi ndeysaan Papa Gueye Mouba ndeysaan combat bi diggante Lang Binta bu la ndeysaan ak beneen boy fàtte naa tur bi wala xawma tur bi waaw Lang bu la mom lañ jakar lol Lang bu la mom lañ jakar lol wala fii lay xëyee ci Lamine TV ndeysaan di gërëm gaay di ziar gaay waa Njom 100 pour bëgg naa leen Ndiaye depuis Maroc wa bitim rew ndeysaan mënu ma leen sama grand Aline Diop depuis Russie ziar na la ko wa fim la la ndeysaan la njëg na tànk ba la njël na tànk ba lang dan na ko lang daan na ko ndeysaan kookoy lang binta bu fim la di nuy ñep wa fim la ndeysaan ndeysaan arbitre sifflé la digënde Papa mu wa ak benn boy Papa gay mo ñu won gannaaw Papa Gueye moo ñu woon gannaaw. Papa Gueye Papa Gueye dàqee ci na booy yi bañ dugg si nit ñi arbitre bi sifflé na arbitre bi na diggante Papa Gueye ak booy wi ndeysaan fii ci Joal dimanche le 29 novembre 2020 Papa Gueye Papa Gueye à domicile la ne Papa Gueye Papa Gueye ak booy bi booy bi day daw Papa Gueye génnewaat na ko ak bi siblewaat na ndeysaan ak bi sible bi diggante mbay délégué ak foo dem bi saan mbay délégué mbay délégué ak dem Mbissane bu Fissel mbay délégué bu Thialane ndeysaan ñu daje fii ci Joal Fadiouth ba tey Papa gay mu ngi bëre fee Papa gay mu ngi bëre fële na lee Thank you. booy ba daan na ko Papa Gueye daan na booy bi ndeysaan ñu ñëw diggante Fodé Mbissane ak Mbaye délégué Fodé Mbissane ak Mbaye délégué Papa Boy Djiné ndeysaan mooy bëre si ginnaaw noonu mais xanaa ni concentré wu si combat Mbaye délégué ak Fodé bi ndeysaan ñu may leen Papa Boy Djiné ndax xaw ma waa ji ñuy bëreel fii ci Joal Fadiouth ndeysaan di bëggee waa Joal ku ci mel ni sama grand Aliou Sow sama champion Moussa Yande mooy arbitre noonu Papa Boy Djiné bàyyi ko ba Dakar Guédiawaye ndeysaan Pape Boy Djiné moo fi daan Ady Diassakh mu ngi dox ci kaw waa ji Papa jël na ko Papa war na ko ndomb oh waa ji daan na Papa caxabal ba ndeysaan dafa njool Papa Boy Djiné daanu na Papa Boy Djiné daanu na dafa bëre bëre yi ba wër waa ji ndomb presque waa ji caxabal ko Sode ak Mbaye délégué Sode Mbisaan Mbaye délégué ne leen ñu bëre ndànk affaire bi du bëre dóor bëre champion la ndeysaan ak nit wax na dëgg ak nit bu ndeysaan kooku mooy Zal Ndiaye champion bu mag fii ci Joal Fadiouth rek ci ak nit Ndiaye mag ci Zal ci El Hadj Ndiaye ndeysaan Mbaye délégué suñu càmmoñ Fodé Mbissane suñu déjoor Fodé fose na ko plaqué Mbaye bañ na ndeysaan Mbaye délégué Fodé Mbissane mooy délégué bàyyi ko caalaan koo dem gisaan moo ñu woon ginnaaw bàyyi ko fii sell ñu daje fii ci Joal Fadiouth ndeysaan dimanche le 29 novembre 2020 Mbissane arbitre sifflé waat na diggante Fodé Mbissane bu fii seen mbaa daaru ak Mbaye Délégué bu caalaan Mbaye Délégué lañ jàkkaar lool ndeysaan Maxalaay mooy bëre fee ak Ndiouga Koor arbitre na dara amul dañ bëre Mbissane Mbissane a ngay forcé Mbaye Mbissane daan na Mbaye ndeysaan wala lu arbitre bi wax ñëwaat na leen duma koor ba si kaw door ko ci suuf wax combat boobu jaxasoo na ñu ñëwaat ndeysaan diggante Mbaye Délégué ak Fodé Mbissane arbitre bi jox na duma koor jël waaw daan dafa déggee foo dem bisaan ndeysaan arbitre sifflé na diggante Karim bu Joal ak Maam Faali bu fombin Karim bu Joal Maam Faali mooy borom ngemb lu weex li Maam Faali Karim boo seetloo ñoo tolloo taay mais Maam Faali moo xaw a gën a ponkal tuuti Maam Faali Karim Maam Faali am na ngemb Maam Faali Karim maam Faly Karim maam Faly am na ngemb maam Faly am na ngemb maam Faly la diva Reug Reug Junior bu Fambine ndeysaan ak Karim bu Joal maam Faly am na ngemb Karim sol ko naax ndeysaan doole doxul jàmm Karim ndeysaan daan na Mame Faly kookoy Karim ndeysaan kooku mooy Ngaljon bu Mbuur ndeysaan nee nañ ndeysaan Ngaljon bu Mbuur nee nañ ko jox mbir jool Thank you. ñaari ndaanaan karim bu zoal ngal jon bu mbuur karim moo féete suñu càmmoñ ngal jon bu mbuur suñu ndeyjoor karim mooy borom vax bi ngal jon bu mbuur borom ndemb lu ñuul ndeysaan di bëgge waa mbuur waaw si di leen di bëgg di leen di ziar Mamadou Faye gendarme bi ñu gën koo xam si jaxat depuis ko ba nako. ziar naa ko ndeysaan keneen Mamadou Faye ta Diof yor ñu gën sama gara ala ziar naa wajah waa jàmm gën bëgg naa leen ndeysaan Karim jël na tànk ngal jon ngal jon bañ na waa Diof yor ziar naa leen Moussa Koli Diam ndeysaan militaire la Karimbu Soal Desan, ngal bumbu. Dibagi wafim lawan bëgg Desan, fim laa waa ndangaan ndeysaan waa ko bongoy séeréer fa laa dëkk fa laa juddoo fa laa yaroo bu 1 2 Samba Karim am jambu Karim am na Karim Galjon Karim Galjon Karim Galjon arbitre bi sifflé na Boy Sane Karim bu Joal Galjon bu Mbour ndeysaan arbitre bi sifflé Karim bu Joal Galjon bu Mbour Allahu akbar door na ko prise bu garaaw mu mooy Karim am na ngemb Karim am na ngemb Karim am na ngemb loolu forum la Karim jël na tànku ñëwel jonn Karim jël na tànku ñëwel jonn Karim yëkkati na ko door na ko ci suuf Karim ndeysaan bu Joal à domicile la ne géew baa ngay toj daan derbi la Papa Gueye Lin Ndiol jël na ko Papa Gueye jël na ko Lin Ndiol suruxal na ko Papa Gueye ndeysaan bëre feeñ na bëre feeñ na ndeysaan premier souffle boobu dootul amati Lin Ndiol le feigne na bëre feeñ na ndeysaan première action Papa ñu Mbinjool jël la tank ba Papa gay bañ na ñu am na Papa gay amna na raw gàddu bi la finalu raw gàddu ñu ñoo fi bëre vendredi samedi ba dimanche tey seen final ah booy ba daan na ko da doon daan ba daanu ndeysaan Thank you. poids léger diggante Papa Niakh bu Joal ak Niay Barane bu Ngaparou Niay moo féete càmmoñ Papa Niakh moo féete ndeyjoor ndeysaan Niay jël na loxo bi teg ko si boppu Papa Niakh Papa wàcce na ñu ngi fii ci Joal Fadiouth tey dimanche 29 novembre 2020 baa ngi noonu. diggante Ndiaye Barane ak Papa Niakh mais demi-finale poids lourd yi diggante Karim bu Joal Karim bu Joal ak Balago bu Bargny ndeysaan Balago Bargny ndeysaan ba tey si finalu poids léger yi demi final la Laago nekk à domicile Balago moo sut moo gën a ponkal mais Karim bu ko xeeb ndeysaan la ndeysaan ñu dellu siwaat ci final bi waa léese bi diggante ñay bu nga faru ak papa ñaax bu sowal papa ñaax lañ jàkkaar lool ñay mooy borom ngeen lu verte li ndeysaan fii ci sowal sadio di bëgge waa ngeenan ndeysaan di dëkk ak jàmme bu mag ndeysaan di bëgg si di gaynde promoteur ba waa Karim mooy romb noonu ndeysaan ba tey ci final poids léger bi rek diggante ñay bu nga paru ak Papa Niakhou Joal wàcc pare na jël na ke Papa Niang Niay jël papanya, tank Papa ke papanya, jël na ke Papa Niang Niay jël na tank Papa Niang final poids léger bi Niay jël na tank Papa Niang ndeysaan Niay bu nga paru eh, gëna ko bu sori ndeysaan nay lum nara def ñay daan na papa ñaax ndeysaan ñay jël na nak ba ca poids léger ndeysaan ndeysaan arbitre sifflé na Karim Bou ak Papa Gueye Papa Gueye ngeen taakaar lool mooy bi Karim mooy ndaamali Karim Papa final poids lourd fii Karim ndeysaan diggante Teranga ak Santhié fii ci Joal ñoom ñaar ñëpp waa Joal lañ ndeysaan mais dañuy bëre Papa Gueye moo ko mujjee daan ca Fimela Papa Gueye jël na ko yëkkati na ko Arbitre bi sifflé waat na ndeysaan diggante Papa Gueye ak Karim Papa Gueye Karim ndeysaan ndeysaan abdou sifle waat na diggante Karim ak Papa Gueye ndeysaan géew bi sox na Karim del la tànk ba Karim Papa Gueye takk na ko Papa Gueye takk na ko Karim a koy dëggal Papa Gueye yi arrière la no, nag bi. nag bi leen a jàpp. waaw dañ leen koy séddale drapeau bi. wala ñun aussi ñu jox ko kii mais est ce que sama jàngat comme kenn moo ñibbi te arbitre sifflewul. ñu jox ko kii est ce que warul ñu jox ko nag bi wala. si ba léegi man loolu d'accord. waaw ah. ko defee du ko ok jaay waay.